Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi bi nga xam ne nag moom kay jamono ji woolu na ci wàllu pétrole bi nga xam ne maanaam daal contrat yi nga xam dañu xamal ne moom Aliou Sall kay tey jii dina jàkkaarloo ñi nga xam ne nag ñooy enquêtekat yi ngir lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu mel ngir mu daal koy leer Sud ko càmbar ngir daal di kay mbir moomee waa mbir moomee mbaadu ak taf yëngal koo xam ne réewum Sénégal ca lañ ko naraamal ndaxte kay bu fekkee ne dañ dañoo dem ba foo xam ne daal match Sénégal Sénégal fi mu toll ci Coupe d'Afrique bi ak tey jii nga xam ne match bi yi ñu xam ne daal war nañu ko amal ñu naan dañuy woolu Alioune Sall fi nga xam ne nag mooy ca division des investigations criminelles ca jamono jooje fekk Sénégal di football yéenikaay bi di ñu xamal ne jamono jooje boo moytuwul daal match Sénégal bi la ñuy gën a tal yéenikaay bi gis ne loole ak taf yëngal mbaa du ci am maanaam daal ndax ñi nga xam ne daal ñooy askanu Sénégal yéenikaay bi di Sud Quotidien lam ci gis moo di waaw ndax yàlla bu boobaa xanaa bu boob mouvement bi nga xam ne daal moom la ñu tuddee aar li ñu bokk danañu wàññi seen xadar gannaaw bu yàgg ba léegi bi nga xam ne daal kàddu yi nga xam ne dañ ko doon yëkkati jëmale ko ci mbir moom mais daan xam ne naan maanaam Serigne Bassirou Gueye dafa waroon a woo ki nga xam ne nag moo di Alioune Sall ngir déglu ay mbiram yéenikaay bi di ñu xamal ne gannaaw kenn woon nañ ko ñi nga xam ne daal ñoo nekkee foofee na daal maanaam danañu wàññi seen xadaar yi ak ñi nga xam ne daal noonu lañ doon doxee ak song yi nga xam ne daal noonu lañ doon song ki jamono ji Sud Quotidien ko sax match sous régional waaw maanaam daal ñaari équipe yoo xam ne daal ñooy tase waaye sorewul suñu dëkk yéen i bi dañu xamal ak lu mën a xew ñoom kay jamono ji la namm kay moo di réewum Sénégal dëggal boppam ba dóor ka moo di waa beneen ngir a qualifier fi nga xam ne nag moom la ñu daal loolee kay moom la sàkku ci ñi xam ne nag ñoo di gaynde Sénégal yi Mbaye Diagne kenn ci dégg kàddu yi di ko weddi ne ko xamal ne ko réewum Sénégal match bi nga xam ne daal moom la war a amal ci digganteem ak benn match la boo xam ne dañuy dikk rek jàpp benn waaw tëj ba mu nooy ñu dem toogi ne déedéet match la boo xam ne ci diggante Sénégal ak benn ku jàpp ne dafa yomb da ngay nax sa bopp nga xam ne daal ndey lépp loo xam ne moo war a dox suñu diggante ak beneen ñu def ko lépp daal danañ ko waajal ngir match boobee ñu génn ci jàmm ak daal match boobee daal match la boo yoo xam ne daal réewum Sénégal maanaam daal mënut a fexe ba jàll ci demi ga gannaaw loolee drogue bu bëri bi nga xam ne nag jàppoon nañ ko ci porotonom bu Dakar yéeni bi délibération di ñu xamal kay ki xam ne kay moom la tuddee Oxfam seen bànqaas bi nga xam ne nag moo nekkee ci réewum Sénégal jamono ji kay communiqué bi nga xam ne waaw waaw coowal góor jigéen li nga xam ne moom ci réewum Sénégal ñoom nag jamono yi nee nañu daal maanaam daal dara mun mënta tax daal daal gëm-gëm yi nga xam ne am nañ ko di ko doxal maanaam daal du ñu nangu dara daal di ko yàq maanaam di leen fëlaale ka yu mel ñoom daal du ñu nangu dara di leen yàqal seen gëm-gëm yi nga xam ne am nañ ko